ponk bu ñu jagleel koom-koom ak kaaraange yi yitteel na jiitu réew mi Macky Sall kàddu yi nekk na yu mujj bi mu njëkkati ci màkkaanu ONU li waral mettital bi mooy ONU sàmmontewul ak li mu digle gannaaw bi moom Ndoumbi Niane coordonnateur bu forom social taataane ay leeral. gis na ne réewu Afrique yi téere yi lañ gën a soxla ku leen gën a ku leen gën a jàppale ku leen gën a accompagner ci li nga xamante ni mooy mébétu financement mooy mébétu développement. ñàkkum dox xëy ak courant doon na mettital bi Afrique daal di saafoon teg Momadou mi ngi woo njiit yi. ñu gën a farlu. Nations Unies ñoo ngi daje te mu def wax fa wax jooju li ñu war a def mooy ko dal xool li ñu mën a def de fi ñu mën a taxawu Afrique mooy que ni ñu jàppale leen ci euh, jafe-jafe yooyu jafe-jafe ndox mu sell jafe-jafe lekk mu doy au lieu que di xaar. lekk buy jógee Ukraine wala euh, Turquie wala Russie alors que suuf si ampagay mu ngi fi donc lekk bi paju gi euh, ndox mu sell mi. li jëm ci pàcc bu ñeel terrorisme coordonnateur bi mu ngi digle. bu jëlee décision ne léegi dama bëgg a doxalin nga xam ne dëgg doxalin bu leer la bu transparent bu normal ku di ci nit. lépp loo xamante ni ñu ñoo ko bokk ñi ko war a bokk bokk ko ci bokkit ngoo xamante ni dafa leer yooyu pour man mooy faj li nga xamante ne mooy judduwaayu terrorisme bi te terrorisme bi ñëpp xam nañ ne réew yu ci gën a am doole ñoo koy créer. président Macky Sall amoon na ay kàddu yu am solo si ëllëgu Afrique Nations Unies dafa war a gën a jox gëdd ci gàllankoor yi Afrique daal di teg si xalaatu du Mamadou Mignane mi ngi ñaan ñu indi ay saafara si ni mu gën a gaawee jaarale ko ci jàppandal programme financement ngir mën a sukkali Afrique. Dakar nag fatt na lool ci embouteillage bi ñu seetlu ni daanaka lu mel ni gëjoon na am ci dëkk bi embouteillage boobee nag li ko waxal lenn la mooy taw bu metti bi amoon démb ba tey ci loolee askan wi di ko ñaawlu ku ci mel ni Guy Serge moo nga ñu wax xalaatam si loolee. je pense que est-ce jàpp naa ni oto yi ñoo gën a bëri katale yi dañu yeewu 4 heures si suba pour egg fu ñuy liggéeyee 9 heures. lenn waralu ko lu dul embouteillage bu metti nguur gi war na jug si loolu. Serigne Fallou Ndiaye itam di ñu xamal ni oto yi dañoo bari ci dëkk bi. fii moom bari na bari na luñ luñ defar lool ci tali bi waaye teewul tamit oto yi circulation day day bari mais lu tax nag ndox mi ndox mi moo bari quoi mais su nekkul ndox mi moom VDN bi ça va mais ak yeneen zone yi moom. liggéey bi des na daal liggéey bi des na bu baax a baax parce que lu toll population bu nekk biir Dakar moom war nañoo mën a war nañoo mën a defar ay ay tali yu bari quoi mais nag yàlla baax na gis na ni ñu ngi liggéey mais travaux yi dafa des. Mouhamed Gueye moom it gis ni ñi nekk dakaar ñoo bari te kenn dëkku fii loolu rek mën na tax embouteillage du fi jóge. damaa jàpp ne dakaar li li fi dugg ci ay nit moo bari jàpp naa ne gars yi dañoo yaakaar ne. liggéey bépp fii la nekk te réew mi yaatu na te loolu buñ ko yaakaaree am na fu ko teg mooy am na yu bari yoo xamante si ni war na fee mën a war nañ koo mën a génne si yeneen régions yi pour jàllale ko fa mais boo xoolee état bi yu ay entreprise ak walla xeer yi nga xam ne ndaw ñi mën nañ faa booloo liggéey fa rek fii lañ ko def muy Dakar te boo xoolee damay di ñaan ay plus ay trois 3 million d'habitants si région boo xam ne dakaar daanaka euh, bu yàggee nit ñi di dugg te chaque année boo xoolee day gën a yokk bu yàggee day créer embouteillage. lu si mën a am nag mën mi embouteillage yi si tali bi ak surcharge yi ci oto yi bokk na ci li suuxee sukkandiku dëkk bi ba tax na laaj bi mooy ba xam TER bi wala BRT bi mën na wàññi embouteillage bi am ci dëkk bi. ndax école yi ndax école yi dañoo war a set ndax ay xale ñoo fay jàngee te xale buy foo du xàmmee mbalit du xàmmee taata du xàmmee dara mieux vaut que ñu defaraat ko que élèves yi mën a jàng normal mais buñ ko bàyyee nii élèves yi duñ mën a jàng normal te loolu day influencer sax ay grève ak yeneen ak yeneen moo lu tax moo tax état bi war na jël responsabilité am defar école yi ndax xale yi ay xale yu ndaw lañ waaw moom it dañ koy toppatoo fépp fi dafa war set à chaque moment. sama xalaat moy waaw deug la ñaaw ñepp ñëpp dinañ ko ñaawlu parce que lo xamante dañ ko wara défar avant mënu ñoo ba bam jégué ci war diko bëgg défar à de cela 20 jours de la rentrée ces genre de problème là franchement état war na si taxaw parce que vraiment euh, ces jeunes là sont l'avenir de demain et puis euh, ils doivent ils doivent être euh, dans de très bonnes conditions, pour, pour, leur permettre de réussir, quoi, en fait. C'est juste euh, ce que j'avais à dire. Et puis, voilà, un Nyop, jam. ñu door xibaaru tàggat yaram yi ginnaaw noppaliku juróom ñaari at kii di Nampalys Mendy tàmbali waat na jouer ci compétition boobu di Ligue des champions ñu daal fàttali rek ni suñu gaynde googu décembre 2016 la mujjee woon jouer Ligue des champions asiatique Sadio Mané ak Al nasar am nañ ndam ci seen premier match boobu club saoudien bi nag wane dooleem si ci pelouse Persepolis ginnaaw bi ñu gagné ñaari bal si dara match nul ci diggante Al di Bali, ak Navabor mom kapiteenu gaynde N'ak nag match ndax bokul ci liste bi wara a bobu compétition ñu waxtane tagat yaram ci Paris Saint-Germain wane na bopam ci Parc des Princes footballeur parisien yoyu n'ak am na ndam ñaari bal ci ci kaw Borussia Dortmund ginnaaw biñ ko mënee benn bal ci match bi Manchester City dabona ñetti bal ci benn di Étoile Rouge de Belgrade ñu di si Newcastle mi dellu si waat si compétition bi ak ginnaaw ñaar fukki at équipe bi nag di a jóge Angleterre ngir jàmmarloo ko AC Milan bu Italie ndam demul ndam dikkul si diggante ñaar ñooñu. FC Barça jël na raw gàddu gi ginnaaw bi mu jëlee ndam li juróomi bal si dara si kaw Antwerp. si temps additionnel bi la Lazio nangu benn poñu Atlético Madrid ginnaaw ba góolu Lazio bi dugalee bii bi ca njeexantalu match ba. yeneen match yi des nag dinañ ko amal tey ci tàkkusaan amal ci it bu mag si diggante Bayern Munich ak Manchester United. si tàkkusaan gi ba tey kii di Real Madrid dina dalal Union de Berlin RC Lens nag dina dem foofu ca Espagne ngir jàmmarloog FC Sevilla Arsenal dina dalal PSV Eindhoven Real Sociedad dina laale ak Inter Milan ki gagné woon championnat itali bi di Napoli dina jàkkaarloog Sporting Braga ñu jeexalee ko Allemagne ginnaaw bi ñu dàkkee seen entraîneur boobu di Hansi Flick falaat nañu entraîneur bu bees di Julian Nagelsmann ma nekkoon Bayern